jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci Parcelles Assainies terrain unité 13. open press 2 Ziga 2 Ziga nag xale la boo xamante ne bi mu dugg see ci làmb ba léegi mu ngi wane boppam Kaaw Gourdin bi nga xamante ne bërki démb fan yi mu ngi lëmbee réew mi 2 Ziga la bëreel fële ci arène national 2 Ziga daan ko loolu rek doy na palmarès bu rafet tey mu war a laale xale bi nga xamante ni doomu yëmbal la. waaye bàyyiwul ak kenn waxul benn mag wala benn xale bàyyi naa la yàlla muy rëm dañuy laaj Deux Giga léegi mbokk yi nan lay waajee bis boobu nan la fi fas yéene def digganteem ak rëm dina neex wala dina yëngu dinañ xeex wala déet dañuy dugg ci biir xool ambiance sama gars yi ñu indi lépp dégtal leen ko fii ci wasaare làmb Adama Kaay la grand cadreur la cadreur de cadreurs Kaay. waa Parcelles yi. hey 2 Ziga. ndeysaan. waa seen diggante yéen ñaar lan la. délicat sama deret la maanaam moo ma tax sax ma ñëw fii entraînement laa jógee léegi mais mënul ñàkk faaw ñu def ko di ko ñaanal ndam lu sedd buy moom du mbër si man du dara mais sama deret la. waaw mu xat-xat ñëw nga bàyyi sa def la bàyyi sa yitte yëpp ñëw ngir dooleel ki nga xamante ne sa frère. waaw kii bëre sama doomi bàjjan la kon tey mën naa ne ñun ay sëtu kumba suuna lañ. waaw dëgg neexul. yàlla na ko yàlla may ndam. Tafa bëgg naa la laaj barki démb bi amoon gisuñu la fa. waaw grand yi dinañ ci wax man mënu ma seegum sànni ay kàddu mais grand yi dinañ ci wax. yow yaa ma promoteur bi bi ma ko jëlee. Fallou li ma xamante ni jot ko suñu la. waaw wax coow amul sax nit ñoo déggul rek. mais yàlla ba gën a xam sëñ Fallou. sa adversaire nee na ñëwoo keroog mais di nga ñëw ci làmb. nañ waajal rek. nañ waajal rek. waaw daa mel ni combat bi am na fu mu la toll. rek nañ pare. yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax yaakaar naa ni kii jëmm ji bari nañu dëkk Parcelles Assainies ñoo xamante ne xàmmee nañ xar kanam gi ñenn ñi xam nañ ko muy Guèye original Guèye maa ngi lay nuyu di la siyaar tey open press 2 ñu ñëw fekk la ban yëg-yëg nga ci am ak sa relation 2 mais contentement ji lii di leen gërëm di leen sant yéen tamit 2 Giga doomu Parcelles la nekk sama xarit ñu yàgg ko accompagner yaam aussi nekk suñu xarit donc tey bu def open press yoon la ñu bàyyi lépp ñëw dooleel ko parce que doomu parcelle la doomu parcelle tey drapeau parcelle lay dem défendre ji donc yoon la tey jii ñu ñu ñëw accompagner ko jàppale ko. ñu ci bari dañuy wax sa xeetu mbaax. sa woyof sa yaatu sa bëgg nit loolu lal la. waaw mais c'est tout naturel c'est tout naturel xam nga àddina moom amul solo te ñun si lu ñu nekk ñu ciy yëngatu dañu bëgg a soppi xar kanamu politique. jaamu ci yàlla depuis 2011 sol loolu lañ nekk nekk ci social lu parcelle soxla ñu andi ko jox ko waa parcelle parce que guddi guddi parcelle amuñu lu ëpp parcel bu ñu ñëwee ci jeunesse bi nga xamante ne ñooy def sport dañ fay fekk ay kilifa Go Faye waaw Go fay naam xam nañ ko waaye dañu ko doon dégg rek c'était la première fois ñu gisee ak moom Go ñu ngi lay nuyu sa taxawaay biir parcelle rawatina 2 Giga. waaw ñu ngi leen di fay yéen ñëpp di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne dañu xàmmee à travers le petit écran di leen wax ne rek euh, euh, lépp lu xew si Parcelles Assainies daf ñuy ñor. muy làmb muy sport muy football muy muy lépp donc Doojiga nag nekk suñu rakk nekk unité nekk yaakaaru Parcelles Assainies donc bu amee combat di def open press am normal ñu bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw may ko doole may ko doole à travers sunu sunu sunu teewaay mais may ko doole aussi jàppale ko si combat bi nga xam ne moom moom la jëm ndax bu amee ndam Parcelles Assainies la jëm te ñun ndamu Parcelles Assainies rek moo ñu ñor voilà. man taxawaay nga am ci jeunesse nga jeunes yi ñoom sooy xarit lañ. ndax souvent dañ ma koy waxee am na bokk naa si ñi nga xamante ne bi ma gën a nekk ndaw laa laa dem nekk euh, candidat si élection locale yi donc c'est une relation de confiance et d'amitié ñu xam ne euh, àdduna moo laaj loolu nañu wóolu ndaw ñi jox leen ñu ndombo tànk te jàpp naa ne ndaw ñi dañu am énergie boo xamante ne mën nañ ko mettre au service de localité loolu rek moo ñu yëkkati ñu leen di fay jaajëf jaajëf kii ñu ngi leen di nuyu mbokki Parcelles Assainies jeunesse su Parcelles Assainies di leen jaajëfal bu baax a baax di fàttali mbokk yi ñuy seetaan ci internet yi fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew li ñu fi indi di open presse xale bi nga xamante ni mooy 2 Giga bu ñu nee 2 Giga nag ne bërki démb xale bi nga xamante ni mooy lëmbe làmb ji muy kaaw Gourdin laale nañ arène national mu am ndam bu rëy ci kawam tey mu dox ci diggante ma xale bi nga xamante ni mooy doomu yëmbal bi bu ñu nee rëm. ñëpp xam nañ ko ci làmb muy ndaanaan di champion mu waral laaleek moom ñuy nuyu deux Ziga bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee mu wax ñu préparation bi nu mu demee sa diggante ak rëm loo ciy waajal ndax rëm xam naa ne am na lu mu bëgg ci yow lu bëree baree bare xaw ma ba xam di nga ko ko mayam déet waaye naam dañ lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi deux ñu ngi lay nuyu di la siyaar. maa ngi lay fay di nuyu waa suñu mbokku internet yëpp di waaw parcelle mbër yëpp gis nga écurie bi mbër yi ñu ci taxawoo ci open press bi écurie yi nekk parcelle yëpp di leen ñaanal ñoom mbër yi ñu si am combat yàlla na leen yàlla may ndam ñoo xam ne amaguñ combat yàlla na suñu borom may leen combat ñu am ci ndam lu kawe suñu jot di nuyuwaat waa parcelle koñ bi ma dëkk surtout koñ bi ma dëkk koñ bi laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee moo tax boo fi ñëwee rek da ngay dellu da ngay da da ngay xam ni kii fu mu dëkk nii cosaan la fa waaw. sa diggante rek de rëm. préparation bi combat bi naam euh, am na beneen combat bu taxoon jóg combat boobu avorté nga jël rëm sa diggante yéen ñaar lan moo leen boole. suñ diggante ñu ñaar dafa ñor rek ñu war a bëre ñu ñu nekk ay ndaw nekk si yoon di liggéey ku ñëw rek dañuy yaakaar ni dañuy jàpp ni ñëw na rek ñu bëre ak moom daan ko dem xooli leneen incha allah. rëm nee na jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël siti te siti moom du wér. arbitre sifflé moo tee bëmëx la yanu la tëmbal la Parcelles Assainies. waa xam nga loolu noonu ay waxu mbër la man ñi ko waxoon ñëpp ba arbitre ne prip dama leen duma daan leen man maay diriger te parcelle laa dëkk fii laa yeewoo. na moom bootul ci ginnaaw kenn amuñu roi de arènes mais roi des arènes moom moo ko fas yéenee indi fi nga xamante ne mooy yëmbal nee naa ko deux Ziga roi des arènes la dëkkal mu ne moom gëmut loo non xam nga ñun moom yàlla daf ñu may sax ñun booy ndaw yi ñu teel am indépendance si làmb mais ñun lu ñuy wut moo métti dañ koy ñaanal rek yàlla na ko Modou Lo yàlla na ko roi des bi yàgg si ay loxoom. beneen bi ñuy wax mooy ñun indépendance dañuy wut moo gën a métti waaw ñun démocratie kon la ñuy wut moo gën a métti indépendance indépendance moom utal nañu ko si làmb ji ba pare ñun démocratie la ñuy wut ñoo koy defal suñu bopp nag di ko waxal suñu bopp bu neexee suñu borom. arbitre sifflé na deux Ziga féete lan nga fas yéene jëflante ak moom bu neexee suñu borom maay xeex maay bëre maay. na ñeme xeex ak moom moom deux Ziga bul ñëw say rek ne maay xeex bu neexee suñu borom bu neexee suñu borom bu yàlla nangu lu muy maye maay duma maay bëre maay daan. xeex ak la ci gën ñaar yëpp laay def ñaar yëpp laay entraîné. ñoom na doo xeex. laay def. waat na ni doo xeex. xam na ni lépp laay def damay xeex damay bëre. li ñu jaaxal mooy bisu open press bi moom muy def tey ngay def tey ngeen war a laale yéen ñaar ñaari ndamay dugg waaye benn ay génn. incha allah fii lay ñëw bu neexee suñu borom parcelle lañ dëkk nee naa la fii fi ñu dëkk nii yàlla baax na après la ñuy comprendre yu bëri après lañ koy comprendre. gars yi dañoo topp di ñu teete di ñu war yoon bi nii nan la ak naka la ñu nekk si ay loxo nag nekk si di Sakho xam-xam ay suñuy grand ñoom Mori ñoom Agogo ñu fi ñëwul ñëpp ñu ngi ñuy jàppale di di ñu conseillé en tout cas daal lu ma la ko mën a waxal. mooy ñun ay ndaw lañ si làmb lañu nekk bu neexee suñu borom bu fekkee champion rek dañ koy liggéey dinañ jaayante pour nekk champion. waaw lan ngay wax ñi nga xamante ne dañuy topp sa ginnaaw te saa su ne nationale bu ñu daanee benn mbër supporters yi ànd ak yenn mbër yi yàq li nga xamante ne ñun ñoo ko moom lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo topp ci ginnaaw 2 Giga. non 2 Giga fair play la tudd man foo ma fekk sax yaa ngi gis maa ngi bëggee gars yi fair play ma sama supporter fair play gisoo ku fi xëppoo ko suuf gisoo ku fi sànni dara régler rek ndax man noonu noonu laa mel quoi. ku nekk nag ni nga mel defe naa say supporters war nañ la mën a fekk si loolu quoi. lan nga leen yab ji ak ban préparation la ñu war a def. xam nga ñun dañoo juddoo dañoo nekk biir parcelle ñu nekk biir parcelle ay suñuy grand yoo xam ne dañ ciy jàpp te yàlla rek tax ku si mel ni monsieur le maire Moussa Sy Go jàpp na si bu baax a baax a baax gay original jàpp na si bu baax a baax a baax yenn politiciens yu bëri su ma limee sax damay jub mais jàpp nañ ci bu baax a baax a baax di gërëm nag sama grand yi nekk si koñ bi ñoo xam ne dañ may teete di ma jàppale di gërëm sama waa Ikiri di gërëm sama papa di gërëm sama yaay di wax nag sama gars yi di wax nag sama gaay sama gars yi nañ teel a préparé nañ teel a préparé wu teel a sangu ba set dagg seen ticket nang ñëw estat seetaan lu neex incha allah. ubbee ak léegi mbëru parcelles yi macha bëre rek yàlla mi ngi leen may ndam ndax làmb ji du nekk pression si deux Giga ni par non ndam du pression ndam kay. non loolu du pression loolu kay daf ñuy daf ñuy yokk daf ñuy yokk te xam ne di ñaan rek kon dañ ne montre yu baax yëpp a bokk heure yàlla nañ bokk si heure yooyu rek yàlla baax na. deux Giga noo waajalee sa combat. nu ma koy waajee mooy nuñ ko daan waajee mais bii dafa am ay prise yu si nekk daa am ay prise prise prise yu si nekk di si ja ñi siy jàppaat am na yoo xam ne sax yu bëri mënuñu ko wax mais buñ ci jugee incha allah rek yàlla baax na. gis nañu waa Parcelles 1 ah. ba 26 mbër yëpp ñëw nañu ñoom ñoom ñoom euh, laa duma yéen ñoom tafa am mbër gaa yëpp ñëw nañu nu ñu def si li ñu def si yow. ndax danoo nekk koo xam ne maa ñoom ñoo yem gi ngeen ñun ñëpp ñoo yem man foo leen fekk rek dañuy dañuy kaf dañuy foo dañuy ree après nag ñoom xam na liñ ma mën a conseiller liñ may mën a jàppale man tamit xam naa loolu mais ñoom ñu ñëw bu neexee suñu borom lépp dinañ ko gérer yàlla nañu yàlla suturaat rek may ñu ndam. lay wax waa parcelle. lu may wax waa mooy ñu seen doom laa seen rakk laa seen lépp laa dañuy yëngu ci sport di góor góorgóorlu ci làmb yàlla suñu boroom mu ñuy suturaal di ñu may ndam dañuy ñaan rek ñu ñëw ñu jàpp ñu ci bu baax a baax a baax wallaahi champion laa. billaay wallaahi bu ma bëree mu neex bu ma xeexee mu neex. bu ma baaxoo mu neex te damay duy stade ba mu fees dell wallaahi sam ca wooteel waaw damay woowaat waa Saalum bi yëpp yëpp yëpp xam sama mbokk Saalum Saalum yëpp di woo samay mbokk papa di woo samay mbokk nijaay di woo ñëpp ñëpp di leen wax ni xam nga combat bi su ma limee damay juum mais dafa am sama grand yoo xam ne dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax ku si mel ni Nazer da siy jàpp bu baax a baax ku mel ni Moustapha Kane sama grand la da siy jàpp bu baax a baax a baax. grand Maka Diagne ñoom goo fay di nuyu monsieur le maire mention spéciale monsieur le maire su may wax si moom sax day mel ni leneen la gis nga yéen a ngi gis fële ñuy def ay ay MMA photo MMA. moom moom may dugal si affaire yi pour may def MMA bu neexee suñu borom yàggatul dara moo ciy jàpp di ñu si conseillé di ñu si góorgóorlu ay entraîneur yu bëri la ñuy booleel. ñuy entraîné yàlla baax na yàlla nañu yaaru suturaal. ñu lay jaajëfal rendez vous kañ. rendez vous incha allah samdi bu neexee suñu borom di woowaat nag waa parcelle bi yëpp yëpp mbër ba mbër yu ndaw yëpp ñëpp maa ngi leen di woo di woo sama staff écurie bi mooy ku si mel ni ñoom per Fallou ñoom Albouri ñoom euh, réew mi Zal gaa yëpp jàpp nañ ci Père Birame Ndiaye dañ la koy ñaanal ñun ñoo lay ñaan ngir yàlla rek nga ñaanal ñu écurie bi ñu liggéey mais nag ñuy ñaanal tuuti rek. équipe bi avancé tuuti am nañ ay talent am nañ ay champion dañuy ñaan rek ñoom gudd fan ak wér gu yaram di nuyuwaat waa équipe bi ñoom agogo ñoom Mori Anaconda su ma limee damay juum billaahi wallaahi taalaahi su ma limee damay juum ndax dañ ma entraîné loo xam ne duma si wax su ma si waxee rek après da leneen day xew ñoom xam nañ man xam naa yàlla baax na bu ñu yeggee incha allah samedi sarax di dinañ xam ni coxoto bi da koy caxat caxatee waaw noonu la demee